mbokk ñuy teewlu ci Sénégal set dal leen ak jàmm tey ñu ngi fii ci Colobane plus précisément ci zone industrielle bi lu ñu fi indi nag di benn opération de désencombrement bi nga xam ne ni ku ko initié mooy le ministère du euh, de l'urbanisme du logement et de l'hygiène euh, publique comme nuñ koy amalee saa su ne ci seen opération zéro déchet boobu di ko amal fii ci Dakar di ko amal yeneen gox euh, ci réew mi tey ñu ngi fii kon ci Colobane ngir amal boobe opération nga xam ne lu ko tax a jóg mooy dind yenn emprise yi ci mbeddu Dakar yi objectif bi nag moo di gën ko yaatal ñu fas yéene leen ko toppal fale ñu ñu gisal sunu bopp euh, li fi nekkoon yëpp ci ay problème gis nañ ay mbedd yoo xamante ni boo leen xoolee ëpp na douze mètres waaye fu ne jël nañ fa boo boo xamante ni weesuwul quatre wala cinq mètres te fii ay camion gros porteur ñoo fi nekk dem ak dikk bi daan na jafe te fii ci li ñuy wax lutte contre la Covid euh, président de la République dafa am programme bu mu taxawal mooy programme de résilience économique résilience économique mooy entreprise yi nan lañ leen fexe ba jàppale ba ñu mën a Euh, gën a mën a def seen seen liggéey seen liggéey gën a ñoŋ lii ñuy def it jàppale entreprise yooyu la bu ko defee ndax ki waroon def waxtu pour indi marchandise am bu fi ndawee ñaari wala ñetti waxtu am na benn perte boo xamante ni def na ko donc xàll yu ñu doon xàll mbedd yi ak yoon yi loolu la doon indi. nañ ci tamit euh, ni mu mel dëkkuwaay bi magasin bois dépôt bois gis nañ dëkkuwaay bi ay nit ngi ci biir dépôt la tamit ci li jëm ci wàllu carburant ñu jàpp waaw ah, te yàlla nañ ci yàlla musal liñ naa nit euh, prévoir euh, gouverner c'est prévoir li ñuy def it c'est prévoir wala prévenir loolu it da cee bokk gis ngeen ni ay dëkkuwaay am na fi te ci ay mbedd yoo xamante ni amul lumière donc te fii zone logistique la day fonctionner vingt quatre heures sur vingt quatre employé bi wàcc cinq heures du matin war a ñibbi wala ki dëkk ci kër yooyu war fi egg si vingt kooku tamit mën na am ay risques ci wàllu ci ci wàllu euh, euh, sécurité euh, société yi doon dem li ñu doon wax sànq ci camion yi dem ak dikk bi dina jafe waaye li nga doon wax sànq ci palette yi jéggi na dayo ci ginnaaw essence moo fa nekk te palette yooyu mégo cigarette dong taal na ko ndax bant la donc bu bu taw bu bu tàkkoon nit bi laa li fiy xew yàlla nañ ci yàlla lool loolu nag ñu doon fexe it mu mu kii ngir jàppale entreprise yi tey li li li xaw a yees euh, ci ci opération bi ñuy def ndax saa suñ ko daan def dañ ko daan def ci mbedd mu fës wala ñu def ko ci bërëb bu fës fii ab ruq la donc dañu doon wane xam naa ni bëri na ci journalistes yi ñoo xamante ni tey guleet ñu fi soog a teg tànk dañ doon wane tamit beneen dimension ci li ñu doon def loo xamante ni jàppale entreprise yi lay doon euh, ci li ñu prévoir incha allah lu gàtt ba gàtt dina doon ñetti fan lu mu lu mu lu mu bon bon teg nañ ay moyen conséquents parce que foog naa ni tey la ñu yokk nañ doole ji Euh, am nañ ci lu mat euh, euh, ñaar fukki plateau plateau bu nekk mën na jël ñaar ba ñetti oto te ñu ngi leen di yóbbu fii ci fourrière bi te tey jàpp nañ plateau bu nekk war na def ñaari ñaari ñaari wala ñetti aller retour donc boo xool ab lim bu takku la bu ko defee suba baraquement yeeg yeneen ñuqut ñaqat yi fa nekkoon ñu dindi ko troisième bi jour bi ñu nettoyé waaye bu loolu weesoo te it maa ngi anticiper ci question bu ñuy wax toujours mooy question suivi suivi bi bale ci sa tànk ñi ngi jaajëfal entreprise yi fi nekk parce que dëggantaan ay weer a ngi nii ñu toppoon ci ministère bi pour ñu jàppale leen ci lii tey farul nañ ci dëgg-dëgg li ci war it mooy autorité communale yi gën cee jàpp gën leen jàppale bu ko defee ñu waxtaan pour xool lii nan lañ koy mën a ñongalee tey faxe euh, sans circulation bi nan lañ koy organiser stationnement bi foofu nan lañ koy organiser mbedd yi nan la mën a fexe ba mu am la ba mu am lampe bu ko defee sécurité bi gën a gën a gën a yokku euh, baraquement yi fa nekkoon it mën nañ fa tabaxaat yeneen yoo xamante ni alakuli àll dañ koy soxla ndax nit ñi fa nekk faw ñu jëfandikoo faw ñu jënd faw ñu jaay faw ñu faw ñu faw faw ñu lekk waaye ci ci ban matériel ak ci anam lañ koy kiwee tool beneen organisation la ministère mi ngi ciy def kéem lim ci mën te dinañ ci gën a waxtaan ak maire bi te incha allah am nañ ci yaakaar. loolu moom am na damay faral di naa ko wax baamu ko baamuwaat ko baamu ko euh, préfet préfet Kaolack euh, nama baal ci kii bi waaye dëggantaan nan nan ko ko kiiwee dafa wax baat bu am solo. nee na dañuy def lu metti waaye defuñu lu ñaaw metti bi mooy xëy na loor nañ kenn ki amoon xam am barak maam wala amoon benn benn karkaasam ñu yóbbu ko waaye ñàkk def gu ñaaw gi duñ ko def ndax lépp dañ ko def comme sommation te it ñu ngi ciy jaajëfal préfet Dakar ak sous préfet ak it euh, autorités yi fi nekk yëpp ak commissaire de police évidemment lépp yëpp ci ci ci ci euh, ci organisation lieutenant colonel Maguette Mbaye ak sunu écovigile ak ñi ci jàpp ñëpp.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 sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.